asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 6 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la journal record wala Les Échos wala fa nga xam ne nii sax moo di ca arène ba fu nekk tey ay xibaaru làmb ñu nga fa bu dee ci yëglikaay biir sunu làmb la moom tafaatin la ñu xëy ñëw wax ci moom record itam xëy na tey wax ci wala boog am ñu ca wax bu dee sunu làmb la moom dafa xëy laaj samp ab laaj nee na daal lan moo tax ténor yi maanaam mbër yu mag yi daal di moytu tafaatin di ko daw ña ca des tamit day espoir tamit ñoom itam mu mel ni soriwuñu foofa ñoom tamit daal ku ne yaa ngay wut yoon woo jaar ngir bañ a laalante ak mbërum bawol mii nga xam ne moo di borom takk ci di tafaatin loolu mooy laaj bi ñu samp tey maam lees nag di di entraîneur nekk fa nga xam ne mooy ca parcelle mbooloo moom nee na li mu gis daal mooy lu dangereux wala boog tafaa dafa nekk mbër ba nga xam ne daal moom moo dangereux daal xëy na moo tax gaa yi di ko moytu sawru faal ne na ñoom la ñuy wër mooy lu yomb daal la gaa yi seet moo tax tax Abdou Bakhoum moom nee na tafaatin moom mbër mu dangereux la moom de loolu la wax moo tax gars yi daal xam naa di ko moytu ak di ko daw mu mel ni ki tamit record ñëw na ci nee na tafaatin day boo bëggee dégg-dégg ay victoire ay saison balance loolu daal fi mu nekk nii ci la yëglikaay ba ñëw ci saison bawol bi nga xam ne ni daal daa jàpp ne fi mu nekk nii moom ay taxawaayam dëgëratul ndax nag ndax ñàkkum combat wala ñàkk adversaire yu mu bëreel mu mel ni comme da koo tëkkale ka nga xam ne moo di Reug Reug wala l'an 2000 wala Sa Thiès loolu loo ci mënti dégg daal Tapha fi mu nekk nii moom affaire am moom loo ci mën a dégg doy na waar mu mel ni kii daal kon Tapha Tine moom bëre xaw na koo të bu nu continuer ba tey dañuy ñëw nag ci li nga xam ne nii fi mu nekk nii coow la ci dëkk bi muy diggante docteur Alioune Sarr ak li nga xam ne ni moom la jiite muy làmb ji mu mel ni ki nag ginnaaw ay pétition yoo xam ne jib na ci ay mbër ay entraîneur ak ay supporters ngir bëgg départ am daal loolu yëglikaay bi suñu làmb xëy na tey ñëw ci moo taxit record feelu ko ne na est-ce que demuk Alioune Sarr kon du nekk solution parce que nag fi mu nekk nii comme coow li bëri na te itam ña ko bëgg bëri na ndax bu demee est-ce que du nekk solution ngir làmb ji te itam ndax bu demee heure bi itam yëglikaay baay laaj est-ce que kon du génn ci buntu bu ndaw bi dem mu mel ni kon fi mu nekk nii moom coow loolu fi nekk nii daal mu ngi ne gadd bëri fi ba nga xamante ne nii daal loo ci mën a dégg bëri naa bari ba yegg ci loolu ak la nga xam ne sax moo ca nekk di li nga xam ne nii day mooy coowal arbitre ya nga xam ne nii jóg na te fan yii yépp ñu di ko coow mu mel ni kii daal fi mu nekk nii mbir mooma mu nga tege ni tege leneen loo xam ne nii moom mu ngi tege te war a am la huit muy diggante ki nga xam ne nii moo di Bébé Saloum ak ka nga xam ne nii moom moo di Franc combat ba nag le 8 mars lay am ki nga xam ne nii day moo di Franc moom nee na li man leer ba leer mooy ndamam moom da koy jëli ji fu bébé Saloum nekk da ko fay fekk sa ndamam yóbbu ko parcelle bébé na ko bu keroogee na nga ñëw jàppal na yow bébé yow moom mu di wax yow Franc bébé ne na ko day yor naa ay xam-xam ak bëre boo xam ne day daan na sax ko dul yow te bu dimanche yow da nga ci xam dara mu mel ni ki foofa itam daal fi mu nekk nii kon yëngu def na ko bu baax a baax ba buñ fa jógee nag dañuy dem ba tey fa nga xam ne nii daal moom moo di fa nga xam ne mooy ca arène bi arène bi nag Bébé Saloum moo fa xëy moom itam mu ngay wax de ci làmb ja nga xam ne nii moom la war a bëre ak ki nga xam ne nii moo di Franc Bébé nag mu ngay ñëw ca la nga xam ne nii daal mooy signature ba la tax mu buude ko dem jàpp na ne daal na mu doon xaare moo ëpp ba tax mu mënatul a xaar mu demu yoonam waaye sax yemu ca tuumaal na nag ba tuumaal ña nga xam ne nii ñooy microcentral ba ka ko yoroon daal ca bisu signature boobu de àjjuma ji nu génne ne na moom dafa far sax ak waa parcelle kon moom bébé saalum daa jàpp ne loolu lépp ay motif la yu tax daal xëy na mu demu yoonam mu mel ni kon daal fi mu nekk nii kon bébé saalum jàpp na ne ko yoroon microcentral ba di baaba kër mi di wax ak yéen daa far ak Franc bébé nga yaakaar ju moom bébé lamb mbër mu mag nga doo mbër mu ndaw am na loo xam ne nii daal yaakaar naa di ko wax saytu ko ba pare door koo wax am na solo trop te nag tooñ yaakaar naa du yëfi nit de nit du tooñ wax dalaa war a leer wala nga am li ngay wax nga am foo ko teg suñu rakk nga nag wala boog suñu frère nga te mbër nga ci làmb ji nga ne mbër mu mag nga ñun nag dañ fee nekk ngir làmb tey itam si kàttanu yàlla feek nu ngi wax dañuy wax li nga xam ne nii mooy tax làmb jëm kanam waaye diw diw la faral ak diw kee la àndal ak diw fële la jëm ak loolu lépp yaakaar naa ne indi ay problème la Franc nga amal contrat le huit bëre leen que gañ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 Babacar nag ñëw na ak sunu lamb sunu lamb daal dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Tapha Tine le géant du Baol nee na nag ñi nga xam ne mooy VIP yi bëgg na bëre ak moom euh, xale yi tamit dañ koy daw nee ñu nag lan moo tax Tapha ñëpp di ko daw jox nañu nag journal bi jox na kàddu ki nga xam ne Mame Less Mame Less daal nee ñu ñooñu ñooñu mooy ténor yee xale yi xam nañu Tapha Tine bi c'est un lutteur dangereux Soro Fall moom moom nee na ñeneen mbër yëpp dañuy wut daal lu yombul waaye daal tafaatin Tine ngi fi euh, ki nga xam ne mooy Abdou baaxul muy nekk manager Ama Baldé moom lu mu gis daal nee na Tapha ku dangereux la waaw li am solo daal mooy xam naa ne mbër la te mbër mu mag la moom tafaatin te itam nag ah euh, kenn du ko seen xool naan ana mbër mi macha allah yaa ngi dégg te itam am na bëree li ci des nag mooy mbër yi nga xam ne ñooy ay VIP ay adversaire am moo xam bala Gaye la moo xam giri Bordeaux la moo xam Bombardier la moo xam Lac de la yaakaar naa ne amuñu raison yu tax ñu ne duñu bëre ak tafaatin moom actuellement gisuma ko parce que mu ngi jóge ci ndam lu rëy diggante mag Yékini Junior te itam xaw na gëj am defet su ma jumale ba ko Ama daanee ba tey yaa ngi dégg kon yaakaar naa euh, nekk na tey ci yoon wi nga xam ne nii tey defe naa ne ramassam ak Lac de Guiers yi bëgg nañ ko comme combat jànq derby Médina diggante ma gri Bordeaux amateuru làmb yi soxla nañ ko ramassam ak Balla Gaye 2 waxi noppi ramassam ak Bombardier itam kazalika naka noonu diggante mag Boy Niang it am nañu ko bëgg kon yaakaar naa daal fi mu nekk nii moom ah ku ko jëlul itam xëy na am nga ay raison yu tax nangu woo koo jël waaye bu ñu ko tegee ci cadre sport moom la wax nii ñépp ku ci tey làmb boole na Babacar Juna aussi ni nga xamal ni que pour Aliou Sarr daa jógee si bopp euh, CNG ñi nga xam ne mooy mbër yi entraîneur ak supporter ñoom ñëpp ni ngi commencé lancer benn pétition daal pour nga xam ni docteur Aliou Sarr président du CNG mu jógee si bopp CNG. waaw loolu day bu amee lu doy doy waar lay doon parce que tamit euh, ñaanuñu loolu am parce que li tax mooy loolu Aliou Sarr dafa jiite làmb am lu mu ci def am lu matul yaa ngi dégg kon suñu sañoon tey suy suy dem du dem ndax ay pétition buñ sañoon day génn ci par la grande porte comme ni ñu koy waxee mais pas ci bunt bu ndaw bi waaw am na loo xam ne comme li ni dafa am loo xam ne nii xëy na lu ma waxoon ker rek moo si ne xëy na yàggaay bi ak nangam sàngam dina tax ba dem ba nit ñi yaakaar ne kat kii war na fi jóge may ñeneen sens ngir ñu ñëw andi lu bees yokk leneen xëy na loolu la waaye li am solo daal mooy kani moom làmb ji ñoo ko bokk nañu xool lii tax mu jag ñu jiim caa aw mais tamit moom mi nga xam ne moom moo jiite itam defe naa ne euh, na xool li nga xam ne daal mooy li gën mu jéem caa taxaw def ko wala mu gën ko yokk boog ndax yaakaar naa mu ngi ci woon mais mu yokk ko waaye li am solo daal mooy pétition boobu moom su demee ba am nag ci ñoo xam ne yaa woon moom kon yow mi leen jiite tamit war nga taxaw nga xoolaat bu baax a baax baax a baax Babacar journal bi ñu xam ne combat le 8 bi nga xam ne Jamaïcain mi ngi koy moom la fas yéene taxawal muy dimanche bi diggante Franc ak Bébé Saloum ñoom nag ku nekk sànnante na euh, ay kàddu Franc nee na ko tama victoire laa ñëw jël si ki nga xam ne mooy Bébé Saloum ne ko man am naa ay potentiel pour mën la daan waaw ñoom ñaari mbër yëpp ay mbër waada lañu ndax Franc bu ne day jël si victoire am waaw képp ku ngemb takk sa ngemb bu ñëw ah victoire ngay wut si Père Max Mbargane nag doon na ma wax ne Babacar ma ne ko ah, mu ne ma ñaari ndamay dugg mais benn ay génn yaa ngi dégg lu ma la wax ñoom ñaar ku ci ne boo takkoo dimanche di ñëw arène ba ndam ngay duggaale waaye bis bu ñuy génn si kàttanu yàlla boo sàgganee benn ndamay génn wala boog match nul te match nul ko fa Franc nag am na potentiel am na lu daan bébé Saloum li tax ñu wax loolu mooy bi niñ ko gisee ci làmb te daanoogul kon defe naa kooku suñ jëmee ci làmb naan mën na daan ak mënta daan dañuy jàpp ne am na lu daan bébé Saloum waaye noonu mu ko amee itam noonu la bébé Saloum amee lu ko daan ndax bébé Saloum mbër yi mu jot a daan yaakaar naa du ñu ay mbëru caaxaan te itam moom ku ko gis muy bëre di nga ne kii mbër la te bërekat la kon yaakaar naa bébé itam loolu mu wax ne am na potentiel bu daan franc ak ay dëgg ak a koo am te bari la ko sax moo tax daal jamay kee ñu ngi koy ñaanal dimanche yàlla na réussir journée bi 100 pour cent ci côté yépp nag waaw suñu jógee nag suñu laam ni dem si record record na dafa xëy moom tamit dala ki nga xam ne moom mooy tafaatin def daal benn gëstu neen tafaatin géant la maanaam ku am kàttan la am taxawaay mais daal tànki daal moo xaw a des xëy nag euh, moom lu ma ko gisee daal mooy nee nag ki nga xam ne mooy genre ñoom bu euh, ngi mel ni comme Reug Reug en 2000 Sa Thiès neen daal aussi tamit imposé wul aussi si cour des grands xëy tamit lu ko Ama Baldé daan moo tax ñu ne il n'arrive pas dans la waaw maanaam taxawaayam moo dëgërul ponkal la mais ay tànkam est-ce que man loolu dama no man awma gis-gis boobu man li ma xam mooy euh, bëre dafa ànd ak daanu sport sax dafa ànd ak ay défaite ànd ak nangam sàngam yaa ngi dégg kantaan nag tey kani euh, euh, sansam ci cour des grands bi wala nangam sàngam man pour man li ma la waxoon la lay waxaat tafaatin tey mbër yi ma la limbal fii ñëpp ku ci ne amuloo raison yu tàng ne danga doo doo ak moom parce que dañu doxaat ba làmb boole leen yaa ngi dégg Ama Baldé mi ko daan tey te benn Ama Baldé ama ama Ama Baldé tey ci li ñu mujj gis ci defet ñu ñi jàpp si moom ah mooy bi ko Ama Baldé daan Ama Baldé moomu tey moo ma daan est-ce que gàcce la ci lam Ama de mbër waada de kañ la gëj a daanu yàgg na yaa ngi dégg kon tey su demee ba daan tafaatin voilà noonu la demee bu demee ba daan bu jóge fa bëriwaat ay komba daan di daan dugg ci TNT bi mu ne ne ca TNT ba sax la ko amaa daane mu daan fa sos daan fa guy gi ñëw jëlaat Yékini si ñor daan ko non kon dama naan comme li ma la waxoon sànq rek mbër yi moom ak tellement seen diggante ak Tapha Tine koo ko ci jox combat la Euh, journal tamit mi ngi moom tamit def benn euh, papier si Alioune Sarr nee ki nga xam ne Abanour nee na est-ce que am Alioune Sarr tamit départ am nekkul solution ak pour mun a résoudre problème yi nga xam ni moo nekk fan yii nii si biir euh, g bi nee nag rébellion wu arbitre yi tamit ak aussi neen tamit su fekkee looloo am Alioune Sarr dina génn par la petite porte. waaw comme li ma la waxoon sànq rek bu demee ci coow lii moom du génn ci grande porte bi yaa ngi dégg ah bu ñu sañoon nag ñun suy dem du demee noonu parce que li tax mooy am na mu defal làmba. ak ñu wax ko ñu bañ ko wax am na lu bari lu mu def ci làmb tey yaakaar naa kon bu buñ sañoon suy génn moom day génn ñu honoré ko yaa ngi dégg defal ko li ñuy defal ko liggéey ba war a wàcc yaa ngi dégg loolu la ñuy ñaan mais nag euh, lu am solo daal mooy que rek na nañu xam ne ñun ay senegale lañu ñu tamit lu mënti xew rek ñu jéem a rafetal mbir yi quoi ba li ñu soxla ñu am ko mais ñu bañ ko def tamit ci loo xam ne nii ñaaw ñaaw lay jur wala jéppante parce que ñun ñoo bokk Sénégal te liñ seq bari na.

coronavirus yu am Sénégal te ñi ko fi dugal lañu ko fi te yàlla ba tey dégg guñu benn sénégalais bu mu arrivé kon ñu ngi ñaan yàlla ñooñu mu dal. waaw te lim bi yokkoo yokkoogul te itam ñu la ñu war a def set gi nag li ma siy waxaat mooy que set moom du nekkul dañuy xaar ba coronavirus am ñu di ko doog a def wala ñu bàyyi ba coronavirus dem ñu ñu ñu dellu ne noonu ak ak set yàllaa ko santaane jullit bi dañ koo sant muy set balay jaamu boromam chrétien ba itam loolu lañ ko sant moom lañ sant bépp doomu aadama ndax set mooy liy njëkk aar nit yaa ngi dégg kon loolu defe naa ne du coronavirus du beneen feebar bu mën a doon nañu jéem a set fu ñu mën a toll quoi set ci xel set ci yaram set ci lépp quoi waaw. Babacar ñu dem nag jeexalee si arène bi foofu nag euh, Bébé Saloum moom am na ay kàddu yoo xam yëkkati ko yëkkati na ko dal si kaw ñi nga xam ni ñoom noo yore woon keroog micro central bi ni comme Babacar. waaw non man de yi Bébé Saloum li ma koy waxaat encore fois rek euh, di nuyu waa arène bi rawatina ku mel ni Ron mi nga xam ne moo koy piloté ak borom kër ga di saf di sama xarit maa ngi koy bu baax a France waaw bébé Saloum seetaan nañ ko mu wax foofu ci lu baree baree bari man nag li ma siy wax du bëri parce que Babacar daf fi nekkuma fi tey ngir di waxante ak nit wala di teesante parce que ñun dépassé nañu yooyu quoi vraiment li ñuy wax da li ñu bëgg mooy ay nit ñuy seetaan fonk ñu trop te ñooñu dañ leen a jox cër kon tey suñu déggee Babacar ci ay teesante ak nangam xëy na comme lu ma waxoon laay waxaat rek te dama koy continuer di assumer sama rakk la sama frère la la ñu boole du làmb yaa ngi dégg wala ba ñuy ànd ak tey man ak moom loolu yàgg na muy ñëw sama kër ba bawal si jaxasoog sama famille kon kooku sama rakk la te loolu tey ba ëllëg mooy li nekk yaa ngi dégg du ma si jóg kantaan nag diw diw la àndal diw diw la àndal bébé Saloum xëy na dafa juum man loolu laa jàpp man Babacar dama jàpp ne dafa juum parce que man keroog maa yoroon ba jamay kee moo ma woo ma ñëw yoral ko ba bébé Saloum yàlla def na tegante wuñu bët ba ni muy ñibbi gisuma ko sax wallaay la yaakaar naa ne mook Franc bu fekkee am naa ku ma ci naan ay farak nang ba tax mu wax yooyu desaa mu ngi juum kon bébé xoolaatal bu baax a baax communication bi xoolaatal bu baax a baax doxalin bi la nga séq ak kii ki ñaar ñaara ko séq ci ay contrat xaw ma lu ngeen dëddante xaw ma lu ngeen bindante ak sama naat se muy sawru faal yéen la loolu seen affaire bopp la man Pape Thialis Faye mi ma fay fii may liggéey yaa ngi dégg duma forcé naan ma kii ngay faral wala moo may fay ndax moo may liggéeyloo yaa ngi dégg am na yoo xam ne nag olof na lu ëpp day tuur wax ji jàppal bàyyil parce que du man kese la ko wax ah encore une fois wax na lu mel noonu Lamine te yooyu mën na ñàkk champion nga man dama la jox cër bu baree baree bari barke alxuraan kon xoolaatal communication bi la ngay waxanteeg jamaykee yéen ñaar la concerné ak sama naan c'est loolu yoonu Babacar Neew si mais nag encore une fois làmb tey yàlla def na am nañ ci ciir boo xam ne ni vraiment daal ñaanuñu yàlla mu yàqu te itam du ñu nangu di ko yàqu ñun ñi ko yàlla jox itam dinañ ko jéem a sàmm ak nuñ ko mën a sàmmee mu ciy profité du nuyu waa axlu làmb yépp moo xam promoteur moo xam mbër moo xam mën a supporter ak ñëpp parce que encore une fois itam promoteurs yi ay sénégalais lañu mais diw diw la faral parce que Abdou Fall nga ko génne tey parcelle fa la dëkk Modou day tax mu ne day toxu parcelle il faut mu tëgg làmb mais parcelle la dëkk pourtant moo tëgg Papa Sow te mook Papa Sow ñoo bokk parcelle diggante Modou ak Luc Nicolaï assumé ko du ñu ay xarit Aziz Ndiaye mën nga ko génne Baba jaw mi tëgg la quinze mars danga nga koy génne euh, biir gël tàppe doomu boykaar yi fu mu dëggul dëkkul foofa kon nañu sellal xel yi indi jikko sportif te nit ki li ngay xalaat ci moom nay doon lu rafet mais di imagine di xalaat xalaat yoo xam ne nii amul benn njariñ loolu defe naa amul sens encore une fois suñu frère nga suñu lépp nga yaa ngi dégg di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa adversaire dimanche ngeen ñëw bëri que le meilleur nañu rafetal soo mi duggee ko marché moo gën diw diw diw diw diw ñun amuñu sax boobu jot te nag ay lañu comme tout ok Babacar si kàddu yooyu nag lañ leen tàggoo di leen jox dig daje leen di incha allah mais nag balaa boobu xanaa ma anticiper rek journée mondiale de la femme te nag moom euh, sama nuyoo nag maa ngi ko jaglee jigéen ñi kese ku si mel ni comme sama yaay Meso di ko nuyu nuyu Khoudia Seck euh, di nuyu ki nga xam ni mooy euh, madame Guèye depuis États-Unis ak madame Guèye depuis aussi Diamaguène di nuyu ki nga xam ni mooy Teneng chéri Babacar di nuyu ki nga xam ni mooy madam Serigne Dia Bombardier depuis France ak madame Serigne Dia Bombardier depuis aussi Mbour Mbour yi nga xam ne samay cousine lañu euh, Anta Diobé Sophie euh, Anta Diobé ak ki nga xam ne mooy maam jaara di nuyu euh, jigéen ñi nekk fii Leewtoo ku su mel ni Aïda Sophie Dior ak ki nga xam ni mooy Aïcha Faye madame Niang Babacar. waaw nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaan ñëpp jàmm man journée de la femme la xaw ma semaine de la femme man moom mondial de man ma man li ma xam daal mooy jigéen ñi lépp ñoo ko moom mm. di nuit au bëccëg ak guddi lépp ñoom ñoo ko muma ah, parce que ñoom la mais nag di leen tànnal ay jour man lu may wax chaque jour rek bu ñu yóbbu ci ay complexe ay journée de la femme ay beneen bi fi amoon fan yee xaw ma yooyu c'est des ay affaire de complexe la quoi ñun ci li ñu jàng ñun gëm ko jigéen lépp moom la yaa ngi dégg amul bés bu ñu koy jagleel mais des fois dañuy tardeel ci loo xam ne nii amul bopp amul génn man daal maa ngi ñaanal yàlla jigéen ñi. ba léegi